loolu wéyee ñu wax ci wàllu euh, Cheikh Tidiane Gadio. Mhm. Cheikh Tidiane gaajo nañu préciser d' abord que ni suñu confrère la. Mhm. journaliste la. Euh, nekkoon di jàngale journalisme fii ci sesti bari na ay ñu mu formé ci ay docteur en communication la Cheikh Tidiane Gadio am ay jamono mu doon dund États-Unis bi Ablaye Wade nekkee président de la République du Sénégal la ñu découvrir Cheikh Tidiane Gadio Wade indi ko fi def ko. ministre des affaires étrangères je crois que post boobu bokk na ci sénégalais yi fi gën a yàgg ndax defe naa ne moom euh, ànd na naag Wade jusqu'à presque la fin de son mandat mu nekk ministère des affaires étrangères moom la def foofu la moom Cheikh Tidiane Gadio muy koo xam ne aussi ku miin États-Unis la nit la koo xam ne ñu ko xam aussi nee nañ c'est quelqu'un donc commerce très facile c'est-à-dire que Gadio du nit koo xam ne euh, dafa teg boppam fu mu nekkul nit ku naturel la bu ñëwoon fii tey suñu plateau bi nga xam ne euh, euh, moog Cheikh Tidiane Gomis mën nañ defante parce que loolu la loolu la tàmm quoi man la première rencontre ma amoon ak Cheikh Tidiane Gadio boobu journaliste la nekk journal Le Populaire mu nekk euh, affaire étrangère ñu invité ko fa ñu toog di ko xaar moom mu toog di ñu xaar bi ñu ko woowee ne ko ñu ngi lay xaar dafa taal otoom ñëw ba foofu ne je pensais que yéenay ñëw mais bon comme ñëw leen man ma ñëw fekk si leen donc c' est boo xam ne daal pour wax la ne ñi ko xam dañu wax ne c' est quelqu' un de commerce très facile. Mm-hmm. la dernière fois que je l' fii ci Walfadjri Ndeye Fatou Ndiaye moo ko invité woon ci émission am euh, opinion je crois que c' est l'une de ses dernières apparitions ci euh, télé wu Sénégal yi. alors moom Cheikh Tidiane Gadio moomu Sénégalais yu bari xëy suba ñenn ñi fanaanoo ko euh, aj talaata wala àllarba suma juumul ñu ne teg nañ ko loxo ci États-Unis luñ ko tegee loxo ñu ne corruption ak blanchiment d' argent. mu nekk ay wax yoo xam ne wax yu rëy la alors lu nekk wax nañ ko ci mais li ci doy waar mooy jusqu'ici euh, sooy liir li nga xam ne moom la ci suñu ay confrères bind lu ci bëree bëri doo dégg la version de Cheikh Tidiane Gadio euh, tu as l'impression que ni tendance à l'accabler euh, à l'accabler à l'accabler mais seetluwuñu au fond des choses lan moo xew li xew mooy Cheikh Tidiane Gadio moi je cherche pas à le blanchir parce que je ne suis pas dans le dossier encore une fois mais li ma ciy liir xam ko ci ci presse yu bari à travers le monde moo di ne euh, Cheikh Tidiane Gadio affaire la boo xam ne ça remonte à 2014 déjà enquête la boo xam ne FBI dañ ko mënee jël seen temps lu bëree bëri li ñu doon mënee comme enquête moo dinañu jàpp ne dafa am ay société chinoise wala société chinoise bu bëggoon am ay marché wu pétrole ci Tchad réewum Idriss Déby ñu ne ñu jëloon Cheikh Tidiane Gadio ngir mu dimbal leen ci loolu genre courtier lay doon quoi bi mu demee ñu ne dafa laajoon xaalis pour jox ko euh, ay autorités tchadiennes bokk na ci Idriss bi président de la République bu Tchad moom aussi am na ay commission maanaam loo xam ne moom lañ ko ci waroon a neexale am na ay mail yoo xam ne dañ ne gaajo moo ko bind ci lañ ko intercepté et loolu lépp américains yi jàpp ne blanchiment de capitaux la corruption la te ñoom seen territoire boobu la duñ ko fa nangu may fàttal rek ni américains yooyu la ñoom ci seen bopp bari nañ ay lobby yoo xam ne ñi ngi foofu la ci États-Unis ay courtier la ñuy jël ñuy dem au niveau du congrès di fa def ay ay ay ay ay euh, nu xawma nu koy tuddee la ay euh, en tout cas di di jéem a convaincre yenn congressistes yi pour que les armes ñu bañ koo interdire ak yu demee noonu yu demee noonu yu demee noonu donc Amérique yooyu lu ñu miin la du lu leen jaaxal mais te xëy na que ni Cheikh Tidiane Gadio def na loo xam ne seen loi tere na ko jàpp nañ ko teg nañ ko loxo mais suñu devoir mooy aller un peu au fond des choses pour comprendre lan moo tax américains yi war a jàpp Cheikh Tidiane lan moo tax ñu tudd la Tchad lan moo tax ñu tudd chinois ma bëgg la wax benn affaire bu am solo moo di ne les Tchadiens d'abord bi ñu déggee affaire boobu dañu wax ne. Euh, ñoom dañu jàpp ne acharnement la maanaam américains yi ñooy acharné wu ci kaw euh, Tchad ki ko xamle mooy mat euh, Madeleine Alingé muy porte-parole gouvernement wu Tchad suñ la waxee américains yi dañuy acharné wu ci kaw Tchad bëgg ko jaar la ci Cheikh Tidiane Gadio il faut nga comprendre lan moo boole américain ak Idriss Déby Idriss bi dafa am ay temps américains yi amoon fa ay ci wàllu pétrole Déby dem ba ci digg bi américains yi génn benn liste ay réew la yoo xam ne seen ay euh, ressortissants dootuñu dugg Amérique Idriss de mer ci ba fut waxoon nañ sax ne Idriss bi dàq na ambassadeur Amérique bi nekk na foofu de ci Tchad après ginnaaw gi lañ ko wedd loolu lépp soo ko boolee neexul américains yi muy benn américains yi seen droit seeni magistrat bokkul ak suñu réew yi ñoom seen magistrat yi seen juge dañuy def campagne électorale dem maanaam bu doon xaar yàlla gii ñu nekk wala front de terre gii ñu nekk benn état la ci Amérique suñ bëggee tànn juge juge dañuy def campagne ñu fal leen il faut que ñu def loo xam ne ñooñu leen fal bu ñu demaatee campagne ñu falaat leen mi ngi mel ne réew mi rek alors yooyu yëpp soo ko boolee encore une fois je dis pas que ni gaaju deful dara mais encore une fois yooyu yëpp soo ko boolee dafay lay yóbbu ci mbir moo xam ne dafa jara teey jar cee tey mooy duñ ne gaajo defu ko mais aussi il ne faut pas l'accabler beneen bi moo di ne euh, boo liiree dans la presse dañu bind ne gaajo citoyen américain la et comme citoyen américain la état wu Sénégal mënu mënu ci def dara soo gisee l'enquête bi FBI def le rapport waa ak alkaati bi nga xam ne moo def rapport bi bindul ne gaajo citoyen américain la dafa bind ne gaajo résident légal la maanaam am na droit am nekk Amérique parce que dafa am green card mooy seen carte bu verte boobule. Mhm. ñuy joxe yàlla na nga ko am. Ah, alors euh, pour mën a séjourner foofu donc ñoom ñu ne citoyen américain la cela veut dire quoi que ni ni ñu jàppee fii que ko taxawu parce que citoyen américain la loolu amul. loolu amul donc muy mbir moo xam ne lu jara jara dem attention la comprendre enjeu yi nga xam ne moo ci am parce que coowal pétrole la comprendre que ne diggante Idriss Déby ak américains yi demeetul noonu parce que bëri déjà en 2006. Euh, début commencé woon na di alerter les Américains parce que difficulté yoo amoon ay relation ak waa Soudan ci la ne woon xaalisu pétrole bii nii il la di dans un journal Le Figaro en France mu ne xaalisu pétrole bii noonu di jóge ca Tchad ay armes la koy jëndee parce que il faut mu jënd arme jàkkaarloog waa Soudan ak terroristes yi. ñu ne Pékin Chine bi nga xam ne fa la waa jooju ñu ne moom lañ jàpp ak Cheikh Tidiane Gadio dëkk ils étaient du côté du Soudan américains yi ils étaient côté. du Tchad mais à l'époque aussi début américain yi seen réaction dafa timoré woon maanaam jàppale bi mu soxla woon dëgg jàppale wuñ ko et na n'avait pas aimé ça Idriss ku ko xam-xam ne defantekat la bu ko ak suñu président yi début moo moom ak waa ji jàpp fi nu mu tudd. Euh, Hissène Habré ñoom ay chef de guerre lañ. Mm-hmm. c' est pas des présidents yoo xam ne dañ leen a élire nii ñoom ay chef de guerre lañ donc ñoom defante la ñu xam ni ko suñu xale yi di waxee fii donc il faut nga comprendre Idriss Déby beneen ñu wax mu jaaxal ma trop moo di ne début tey nan la Cheikh Tidiane Gadio mën a waxee ne nañ ko jox xaalis mu corrompre débit débit président wu réew la boo xam ne alal ju bëree bëri lañu am ci wàllu pétrole donc débit soxlawul xaalis mm-hmm. am na peut-être leneen lu ci am mais débit soxlawul xaalis mm-hmm. ñu jeexal ci lenn moo di ne euh, Gadio député la au Sénégal alors bari na ñoo xam ne tey fii ci Sénégal ñi ngi xeex ngir bëgg a nekk député bëgg a nekk président wu lii bëgg a nekk président wu lee xam tax Fatou mm. lii dal Gadio lañ bañ mu dal leen parce que Sénégal gii bëri na fi ñoo xam ne ci yu mel noonu la ñuy liggéey maanaam nekk ci diggante ay chef d'État mhm. nekk ci diggante ay homme d'affaires mhm. di lijjanti ay marché fii am ci dara te yooyu am na ci réew yoo xam ne corruption lañ koy jàppe te bu fekkee ne yaa ngi koy def amoo immunité bu lay protéger fii Sénégal am na benn waaye bu ko bind ci page Facebook am d'ailleurs je mu ne li dal gaajo noonu ce n'est qu'un début bu ñu deful ndànk année yi ñu jëm di nga gis suñu Sénégal gi ay kilifa yu bari bu ñu fi génnee américains yi wala français dañ leen jàpp teg leen loxo.